sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay maam jaara sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay jaa jeufati suñu mbokk internet yi di leen nuy jox leen seen way di leen tatagal ci magalu poroxane ñew fi fan fi ci poroxane set sikane soxna jaara Bousso soxna jaara Bousso waju wu jigéen wu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moy soxna si dund fanweer at ak rek waaye ay siècle siècle dinañ ko tuddu te du deñ ba abadan ndax andil cette vérité universelle di Cheikh Ahmadou Bamba soxna jaara Tulaay nak si nous mouride nek une grande figure ndax lan référence la ci képp kuy jigen war

ci dëkk bi ci soxna si fi tëdd liggéeyal soxna jaara liggéeyal sëñ Tuubaa ngir àddina bépp jariñoo ko ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi delloo am nuyu waaw euh, sëñ bi ni ma ko waxee ci njëlbeen dañoo ñëw fii ci Porokhane di wàccaay li nga xamante ni mooy màggalu Porokhane Porokhane nag am na histoire bëgg naa ci waxtaan bi buñ koy buñ euh, ci li ci jiitu ma bëgg naa laaj mooy lan mooy Porokhane exactement jërëjëf soxna si Porokhane buñ koy wax dañuy delsi wat directement ci Soxna jaar Poroxaan ab dëkk la dëkk la boo xam ne ci biir Saloum la nekk région wu Kaolack fi la Poroxaan nekk yeneen dëkk ngi fi yu dul Poroxaan kon bu fekkee dañoo ber Poroxaan di ko tudd ci biir dëkk yi nga xam ne ñoo nekk Saloum nekkandoo fi ak Porokhane dafa am ku tax ñu di tudd dëkk kooku mooy soxla si fi mu muy soxna jaar waaye soxna jaar cosaanoowu fi ay bokkam cosaanoowu fi ay maamam Fuuta Tooro lañ bàyyi ko bu soobi gi ci Jolof wala ay maamam bàyyi ko golere la feeñe moom kon diggante golere ak fii xam nga ne sori na fuuta ak fii kon bu fekkee dafa cosaanoo foofa ñuy tudd poroxaan di ko tudd moom te moom mu waral ko te moom mooy ki ko waral kon jëmmi poroxaan suñ koy wax ci soxna jaara la ñuy dem am boobu fii ay tukkuleur ak i séeréer ñoo fi dëkkewu waaye nag dafa lu ko fi indi li ko fi indi ca la nekkoon ba yàlla gërëmal ko lim doon doon liggéeyal boromam mu wàcc ab liggéey fii fii di barabam kon kon li valorisé suufu Poroxaan ba àddina bépp di ko dégg ba mel na Soxna Jaara dafa dund téeméeri at wala ba tey mi ngi dund jëfam ju yàlla nangu moo ko waral. am na solo lool ndax ni ma ko waxee rek soxna si dund lu dul euh, ci kaw suuf fanweeri at ak ñett waaye daa mel ni dund na ay siècle siècle mm-hmm. ndax def na fi jëf joo xamante ni duñ ko fàtte mukk baa baabadan la mm-hmm. kon ci li nga wax euh, ma jàpp ni kon euh, soxna si dëkku fi juddoo fi waaye da ceege da fee gane si mm-hmm. ok xam nga suñ borom dafa wax ci alxuraan ne suufam si dafa yaatu suufu yàlla dafa wax ci alxuraan ne sama suuf yaatu na fu ngeen ma mën a jaamoo baax na suufus yàlla dafa yaatu jaam bi fu mu nekk mën na fay ne di jaamu yàlla su bëggee tuxu dem feneen ngir jaamu yàlla yi mën na ko soxna jaara d'abord ndigal moo ko fi indi dafa nekk ak sëñ Mbàkke Moor sëñ Maam Mor Anta Sali ndax bi mu jógee ci bokkam Mbàkke ak Bawol la fekk sëñ Mor Anta Sali ab diir lañ fa def ñu ñëw Njakkan benn village la bu ne ci wetu Mbàkke booba Ahmadou Binta mi miy waajuru soxna Sali Kan mi jur Maam Mor Sali moo fa yoroon daara alxuraan biñ jógee Njakkan ci lañ ñëw Xuru Mbàkke biñ ñëwee Xuru jógee Xuru Mbàkke ci lañ ñëw Porokhane li ko waral Maba Jaxu Ba da doon xeex ak ceddo yi Don ragal ñu ginnaw ko mu ginna tubaab ceddo yi ginnaw ko fayu ci kaw serigne ci ci la gis mambalay si ci ngay siñi bëgg ko indi bëgg indalé kilifa yi nga xamné kilifa yi diiné lañu ngir ar leen mambalay sa di mag mag la mënta tuxu mu ne ko mënatuma dem baye ginnaaw da ngay da ngay rawali suñu diine dama jox la sama taw da ko jox sëñ mourad tassane ba seetlu woon na ci sëñ Maam Mor Sali ne amutug jaxasoo ak buur yi Maba mm-hmm. ñooroot la nekk ñooro dirib mm-hmm. Maam Mor Sali ñëw randu si ba Poroxaan nekk fi sëñ Bousso bi mi bokk soxna jaara ndey ak baay nekk Paos Koto am na yeneen kilifay diine yu Maba indaale yoo xam ne kenn ku ne am nga foo nekk mm-hmm. loolu kon mooy li nga xam ne moo indi soxna jaar Porokhane mu nekk fi 1865 ñaari at rek na fi def 1865 66 mu nelaw mu nelawee ñu denc ko Porokhane sëñ Mor Anta Sali fi dem Pataar Lat Joor nekk kër Ahmadou kon Porokhane tuddatuñ ko ndax denc nañ fi soxna si Maba Jaxu nelaw na ci somb mooy bi muy jotee ak buur siin ba des fa ah si Mor Sali daal di tuxu soxna jaaree moom des fii tey muy poroxaan waaye desaale fi nag liggéeyam bu ko yàlla nangul ak liggéeyam bu ko yàlla gërëmal sunu borom dafa wax ci alxuraan ne du sànq jëfi jullit bu sellal jullit bu sellal nag

mooy jox yàlla boppam di liggéeyal yàlla ni mu ko war a liggéeyal ba loolu moo ko jox garaatu jaaratullaahi jaaratullaahi du tur waaye garaat la waaye maryamu bu la tur fanweeri at ak ñett yooyu ci la def li muy def lépp ci la jàng li muy jàng xam ko muy alxuraan ak diineem ba mu mat ci la liggéeyal yàlla ba am cër bi moom génnut fanweeri at yi ak ñett alors mu mel ne kon Sayyidatuna Mariam mooy jur yonent Yàlla Isaa mi ñu ko tuddee nuru na ko ci yu bari macha nuru na ko ci jël ay atam nuru na ko itam ci sellal ak jaamoom digganteem ak boromam ndax Sayyidatuna Mariam sun borom tudde na ko tur woo xam ne ak tuddiin woo xam ne ci ngay xam ne dara jaam rëy na mhm. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعي القرآن سيدتنا مريم سنبون رفوحنا موقو تان تي لي ادنا بيت غنل ديغل كو موي جامو يالله Sayyidatuna Maryam defe ko ni ko ko yàlla sante ba sum boroom jagleel ko yonent yàlla Iisaa mi nga xam ne mënuñoo laal góor ni kay bàyyi sekkere bu sum boroom roof Sayyidatuna Maryam la ngir yàlla waajal gum waajal Sayyidatuna Maryam loolu nag Sayyidatuna Maryam da ko wàll sama jaara bu sum am na solo loolu ndax euh, dégg ngeen li nga xamante ni moom la sëñ Abdoulaye Diakhoumpa wax lii am na solo lool lii di nga xamante ni mooy soxna bu Bousso ba tey ji suñu borom fayee ko bis bi ñuy màggal la muy màggalu Poroxaan la. ginnaaw moom yàlla dogal na ne sëñ Touba ku yàlla waajal la ngir mu war a sauver l'humanité yàlla waajal ko nëbb ko sëñ Touba di dencu sunu borom boo xam ne. dafa am waxtu mu wara feñ faw yalla wajal ndam lim ko def ndam lolu nak yi ci wara dajje yep da ci dajje moo dama la wax legi sunu introduction na la soxna jaara ëwwalan lim jëk def moy jang alquran tel ko mokal ci fukki at lako mokal mën na tari téere bi mhm. te du ko xool mhm. ci fukki at yooyu ci la ko mokkal man koo tari te du ko xool waaye ci la ko tari xoolu ko ci la ko bind yi te xoolu mhm. bi muy am fukki at ak juróom-ñaar fekk na mu noppi ci programme yi xam-xam yëpp muy diine jàng na téere yi ñu ciy jàng yëpp littérature arabe jàng na téere yi ciy jàng yëpp noppi futtiku nag ngir wut ngërëmul yàlla ci sëñ Mor Anta Saly mi ko wax suñu borom ba xam nga sunu borom moo mi waajal góor moo waajal jigéen. dëgg la jom akuk dogu yàgg na ci jigéen ju baax. dafa am ku ñuy wax sayyidatuna Ammaara al Ansaariya ummu Ammaara al Ansaariya am na aaye alxuraan joo xam ne soxna soo soo tax yàlla wàcc ndax soxna su jàmbaare la woon soo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa daan wax ne buñ masaane ne ci toolu xare bi su ma geesoo dama koy séen mu yuuxu moom jigéen jooju yor jaas yi di xeex ni góor ñuy xeexe wala kook di wax naan man lépp lu ma dal te àddina la ma dale awma ci soxla waaye soxna soo soo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis ne ko waaw li xew lan la yalla dafa melni yiwu ادنو yu ak allah rek goor ñi dañ ko jël ba jigen ndax alquran jige goor ñi rek lay tu ah rek sun borom ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سنبرم فم تد غور تي جيف رك جيل جيجن تك تي ورك رحم ني جيو ليغي غور جيجين تي من عمل صالحا من ذكر او انثى الله كو جيف لو باخ مو غور nga مو soxna jaara di kenn ci ñooñu ku ku ci fi mu ne ndax koo xam ne bi ñu lay waajal ngir nga wuti ngërëmul yàlla ci sëñ moronte sali nañ xool waajin wi ndax booba li daan am mooy jigéen bu waree dem kër fa mu dëkk ñu baax ña ne dañuy ñëw encercler ko di ko wax mbaaxu ka mu jëm soxna jaar nag ay bokkam ak bokki dëkkaaleen tey ay mag aw mag ñëw wër ko di ko wax baaxuk sëñ Mor Anta daara yi sëñ Mor Anta Sali na nga xam ne fa nga jëm daara la neexul ki nga jëm ku nangoo jaamu yàlla la ki nga jëm ku baax la ki nga jëm nangam ki nga jëm limal ko lim yu bari yooyu yëpp nañ xool réaction wu soxna jaara bu automatique bi waxtu wuñ ko waxee loolu nga xam ne dafa spontané mooy bi ñooñu daaneelee seen kàddu rek ci fukki at ak ñeent jëm fukki at ak juróom la ñu yóot kaamil alxuraan bu nekkoon ci kanamam ubbi ubbi ko yam ci maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatimal nabiin mu tëj téere suñu borom dafa wax ne ginnaaw yonent bi am yonent dootu am yonent bi moo scellé la prophétie kenn dootu ñëw soxna yaar daal leen tontu ne leen man de li ma jaaxal mooy ay jiimayam tax na mënumaa wax ne danaa fi liggéey ba am fi yoon waaye xoolal lam ca teg daf ne euh, sayidatuna aminatu bintu wahbin mi nga xam ne mooy way juru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayidatuna maryamu mi way juru yonente yàlla Isa nangu na maa wujjeeg ñoom ci genn kër te du ma gën doom baat boobu la ci teg loolu mooy bi muy wax loolu kon fees na dell ak jom uhuh. ak jom fees na dell ak yitte fees na dell ak xam ne yàlla mi joxoon ñooña loola yàlla moom mu ngi fi lam daan joxe tëliwu tëliwu ko tey la ko gën a te ku ko wut dana la ko def loolu tax mu am courage su man a tontu tontu bu jot boobu ci wax ni ñii liñ may jiitu jiitu nangu na maa compétir ak ñoom nangu na maa def musaabaqa ci wut lu baax ak ñoom ndax duñu ma ëpp jom noonu bu buñ doon détaillé mën naa sori waaye nga gis ne kon yitteem juróoy jooju tey ak noonu mu ko defee ndax bi mu ko waxee ba noppi da koo jëfee waxul rek mu yem ci aw làmmiñam da koo jëfee di taxaw ni mu war a taxawee ci digganteem borom waaye di taxawu sa morom sëñ ni mu ko war a taxawoo ah yàlla nag ku jëf mu fay su fekkee dëggu dëggul

ci na mu war a taxawoo boroom këram ci na mu war a taxawoo ci na mu na war a jëfiñe bu suñu borom di ko fayee yenn ñi ndax bu ñu seetloo ci say kàddu yaa ngi yaa ngi expliqué yaa ngi jàngale li nga xamante ni moo tax mooy doon taxawaayu soxna jaara ba tey suñu borom fay ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul buñ deltoo gannaaw tuuti ci taarix danañ gis ni yàlla bi mu waajalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal ko ngir ñu gëm ko jigéen ko njëkk a gëm. dëgg la. bi ñu bund xataalee rasulullahi sallallahu alayhi wa ci biir mbokkam xam nga ni njëriñ gi teel na ci moom. dafa mhm. teel a doon njëriñ. ci digg wàllu ndey ak bàyyi. bàyyi taxam teel a dem maamam teel a dem. bi nga xamee ne waajuram nelaw na baayam nelaw ñi téye woon kafaale bi di ko aar muy Abu Talib ak Abdul Mutalib ku ne teel naa dem kon njëriñ dugg na te waxtu woowu nubuwa gi ñëwagul yàlla yónnee ko ah bi ko suñ borom yónnee nag muy koo xam ne yónneen bi dafa war a tas àddina bépp jot ci ndax yàllaa ko yónni commencé nara tumuranke ndax kenn nawloowu ko woon ba bëgg koo may soxna wala nga nanga goroom leen moom nañ xool sayyidatuna Xadiija njàmbaar gi am diggante la yonente mooy jëloon na alalam daan ko jox ay commerçant mhm. ñuy dem di commerce di jël seen bénéfice di ko delloo bañ gaaral ko yonente bi alayhi ne jigéen yàgg naa bëgg lu baax bi ñu ko gaaralee yonent bi sallallahu ba wax ko jikkoy yonent bi moom ci boppam moom jigéen ji moo am humilité wu wàcce boppam proposé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jël ko soxna am yabal xaritam gaaral yonent bi malgré seen at yi ñu wutee moo ko mag malgré ni mu ko ëppee alal ndax yonent bi jëriñ la malgré Xadija ni mu doone jigéen joo xam ne ci Quraysh ku ko mës a bëgg daq na la ginnaaw ginnaaw ñi mu njëkk a am ñu faatu keneen ku ñëw dàq na la ba suñ borom taw feexal ko yonent bi nangul ko lool mu ñëw njëkku koo gëm nga njëkk a ànd ak moom njëkku koo consolé soulagé ko ci bi nga xamee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis na lu ko tiital te xamul li ko tiital lu mu doon dafa ñëw ci Xadija moo ko solutionné mm-hmm. sàng ma mu sàngu ko li may gis lii lu mu tiit naa ci sama bopp mu defal ko na ko bul tiit ci sa bopp yow yàlla du la gàcceel ndax nangam ak nangam ak nangam a tax yàlla du la gàcceel kon bul tiit dal di jóg déplacé wu dem ca war a xatam nu naw fan wax ko li yonent bi alayhi salaatu gis ànd ak moom ba soulagé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi nekkaat nit maanaam delsi loolu jigéen a ko def ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ma ne la jigéen yàgg na ci lu baax jigéen na njëkk a nekk martyr ci lislaam Sumayya bintu Xayaam moom la njëkk rey ci lislaam Abu Jahlin moo ko rey ci gëm yàlla kon jigéen la deretam njëkk a jigéen a njëkk a gëm yàlla njëkk a joxe alalam jigéen a ëppoon xam-xam ci niti àddina bi muy sayyidatuna Aïcha خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة سين جن والو خاجو دين جن لين كو جيجين سوخنا سوتوتي سوخنا سي كون فوفو دام لاي واخ نه جيجين موي نداي غور غو في غيس ني ديكو تاغ اك نومو مانا مل امنا واي جور جيجين موتا عربي دانيي ليب دانيي جوخي اي بارابول دي واخ غور غوري غو غيس كو جيجين دوري ييغي سي غناوا kon jigéen war naa xam position bi muy taxawee ci société bu mu mën a doon ak époque bu mu mën a doon mu xam ne lu baax njëkkantel sunu boroom moo bind góor bind jigéen yaa ayuha naasu inna xalaqnaakum min dakarin aw unsa wa jaalnaakum shuuban wa xabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir yalla mo bindu goor bindu jigen djel njambar tek goor wara a compétir jëm ci njambar jigen wara a compétir jëm ci njambar musaabaxa la compétition compétition boobu yalla da ci juste jigen man na daw xel wu goor du daw jot cër bu goor amul ah, muy soxna si suñ gannaaw mhm. doy na misaal fanweeri at ak ñet ci lañu amal ki ñu sauver Cheikh amadou Bamba mission salvatrice boobu mu amee ba def ko ci sunu biir ki ko fàggu gannaaw dogalub yàlla soxna Jaara mi tudd loolu sëñ bee ko waxal boppam itam ndax boobu bi mu nekkee ci résidence surveillée xam naa danañ ci dikk bu ñu ko temps bi maye sëñ bi da daan bàyyi xel soxna si ak ba am bis ci mag ñi ku ñu wax sëñ Aliou Seck wanaar ci mag ñi nekk Saloum la wax ak sëñ bi bis naan ko soxna si dama laa dégg nga di ko tudd lu bari lool lool moom de xanaa dara jéggi ci na lool. sëñ ree ne ko ginnaaw may yi ngeen gis yàlla may ma ko mu bari ba jaaxal ko ginnaaw dogalub yàlla liggéey soxla jaara tax ma man ca jot. dëgg liggéey boobu nag bokk na ci bi ci jiitu mooy li ñuy tudde xefzul xay bi mooy téye sa lam denc kumpa ndax soxna jaara bi mu yoree sëriñ bi rek la xam na yor na ko wareesu ko siiwal dafa am waxtu ko yàlla yi nekk kenn suñu ko siiwal ca waxtu waxtoom jot suñu borom dal di roof soxna jaara personnalité ak dignité bu mat sëkk ak ngor ak téyew làmmiñam bañ mën a jariñoo seen jiwaate kon foofu. Mhm. daay wax ne jigéen wax macha allah li nga wax am na solo loolu day wane rek li nga xamante ni mooy la place de la femme dans la société. mais au delà di wane itam li nga xamante ni suñu borom jagleel na ko soxna yi. ba suñ ba ñu fayee ñu tey soxna jaaratu laay. Mm, màggalu poroxaan nag ñu koy wax. كم دنيا وحى ما قلت توبة أنا دا أم ينس دينا أم أي دين كان يوهم تنين كي وح شيء بسوب ما قال ما قال دوجا منو يجاهر ما قال دوجا منو يفا ما قال جمنو يفتلي كوبا سن برام ما قال ميجي جوجي وحى يالله جيم وحى وذكرهم بأيام الله يوم انتبه لا يوحى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ayyaamullahi yi la wax yonent bi ne kon nañu ko fàttile bisi bisi bisi ponkal yi bisi gaañ soxna jaara buñ dajee dajewuñ rek ngir tudd gi mu tudd soxna jaara dañ fee daje ngir dafa doon liggéeyal boromam am yu mu ca daj lu ñuy tudde masaqaat ay pen coono yu metti yu mu daj ci digganteem ak muñ ga ngor ga tabe ga lewet ga gëm yàlla ga maandu ga ñi fiy ñëw yooyu lañ war a jàngate ci moom waaye bi ngay ñëw fa nga jóge lekk gi nga fi bàyyi fekk nga ko bàyyi nga gi nga fi fekk taxul a solu di jaagar jaagari ci biir nit ñi waru laa tax a jóg waru a jóg waxtaan ak kaf ree waru laa tax a jóg roh gu sel gu bax gi teud fi mom nga wara baye xel gem ne nga boole ci sa pass pass soko gisut mi ngi lay gis soko yegut mi ngi lay yeb nga baye ko xel ñew di ñaanal loolu dañ ko ci war di boole mhm. yaronte bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi ñu koy ñaanal moy salli wa salli sëñ Tuubaa ko wax kuñ ci dut ñaanal amu ñom kuñ ci tuddu dañ la wara ñaanal ba noppi door a ñaan ci seen barke tawassul yàlla ngay ñaan waaye dangay ngay def tawassul ci ñoom ci ñoom ngay jaar ngir ñaan yàlla maanaam tremplin la booy jaar di yéeg waaye dafa am lu tax a jóg la tax a jóg mooy la ne fële waaye faawu nga jaar ci euh, raas bi ngir man caa jot waaye la ngay wut ca kaw la nekk kon loolu ala kulli xaal day am boo ñëwee ci soxna si dangay ñaanal soxna si soo ñaanee ñaanalee soxna si ba noppi doog a dékk soxna si say loxo nag ñaan sa boroom ci barkeb soxna si mu faj sa xaaj kon mooy mbir mi nga sellal ko itam nag bu fi xuloo suñ borom daf ne xaj màkk bu jotee xuloo ak xeex ak werante bu mu faam dalay xañ barkeb la ngay wut kon ku ñëw fii ci dëkk bi bul xuloo bul xeex bul wax lu bon bu ko def xol bu laab ngay indi ndax fii dafa enclavé kii fi tëdd li tax ñu di ko fi fekk ngërëmul yàlla lu mu lu mu tëddaale fii moo tax ñëpp di ko fi fekk loolu nag dafa am lu mu laaj comportement yi war a changé. sëñ bi nee na bi biya sëñ Tuubaa nee na biya biya taallaqa alladina aslamu min jinni asri uh-huh. nee na jinn yi gëm yàlla. Uh-huh. te jamonoon teeg man te waxtu wu ne la bëgg wax daal masala uh-huh. ñu ñu ñoom jébbal nañ ma seen bopp. jinne yooyu nag yi ci yi ciy jinne yi murit yi jigéen. man nañoo màggal si. boo tasee ak ñoom ci buntu barab bi rek. def leen loo leen war a def lu ne mën na koo jur kon nag yar bi dafa war a matale. Mhm. ak teggin yi ak comportement yu baax yi. loolu dana tax suñu borom gërëm jataay bi li kenn ku ne lañ koy wut yàlla jox la waaye boo fi ñëwee di ak xalangu yi nit ñi def loolu amul moom. loolu moom ñu ngi koy dégg ñun ñun ñi dëkk ci dëkk bi sax dañoo jaaxal. mooy fee la soxna jaara doon xalangoo loolu xel sax nanguwu ko soxna si dafa civilisé woon. dafa correct. Mhm. ku mel ne soxna jaara amul jotuk xalangu suuf. loolu wax dëgg yàlla ay waxi caaxaan la ay détails la yoo xam ne teguwul fenn kon amut mm-hmm. ñu koy def xëy na ñàkk xama tax ñu di ko loolu nag euh, xam naa en conclusion. Mm-hmm. màggal gi bu egsee fii waaw xam nga sëñ waaye itam man bëggoon naa xam njaboot ji nga xamante ni ñëw mucc wuñ ci soxna jaara xam nga ab taawam sëñ Maam Mor Jaara la. Mm-hmm. mooy taawu soxna jaara euh, sëñ Habibullah moom itam dafa teel a nëbbu. wax nañ ne touba da na wax ne sax ñaari jant duñ bokk nek ci benn jamono ndax bu bu dundoon suma xam mom furu Mbàkke la dess ak soxna Fatima dañu tel, dañu tel la ñu làq nga bot soxna jaar euh, li li waral nak magal gi mën siiw bañ ki ba nit ñi di ci bàyyi xel moy dama wax ne seigne touba da daan bàyyi xel barab bi ba ku ko nuyu sax mu laaj la barab bi yabal la am na ci réew mi ay ay ay ay taalube sëñ Touba yu mag ku ñu wax sëñ baaw a njaay sëñ Mbay Mbuuma sëñ Moussa Paté Dramé ñoom la sëñ bi daan jox ndigal yoon wu njëkk yoon yu njëkk ya ñuy ñëw ci barabu sëñ bi de ko ko toppatoon ñoo daan def màggal yu njëkk yi ginnaaw bi sëñ Basiru moom sëñ Touba ko digal mu ñëw li si soxna jaara sëñ Basiru donc moo réhabilité Porokhane bi ma fiy jàng si sëñ Moussa Bassirou indi ma fi booba godron bi newu fi latérite mo fi nak forage amu fi teen bi ci wetu wetu jumaa ji moo fi euh mo fi nekkoon dara newu fi woon bi amul won électricité ñun courant bi fi lañu fekk donc seigne Bassirou mom mo fi ñew ci ay jafé jafé yu metti lool lool lool fanaan fi bi xeyé la né barab bi fas naa mu melni Touba donc 1966 de nelaw seigne Moussa Bassirou jël relève boobu yëkkati poroxantay bam ba mu Euh, goudron bi forage bi commune siège commune rurale def fi école def fi marché dëkkal fi ay nit samp fii kër moo def kër soxna jaare gu mag ñi kër Sëñ Tuubaa liggéey lu waat bar tabax jumaa ji ñu fi ne ñëpp moo leen fi indi kii ngeen di war a jël nii sëñ Bàcc Jóob bi Maroc la doon jànge ci ñi raw ci réew mi la bokk sëñ bi da ko bàyyi loolu lépp moom la dénk barab bi man kii jàngal na nekkoon naa classe am donc kon poroxaan li fi ne lepp sëñ Moustapha moko fi def période magal gi moko Dan fixer moko dan japp dag bi ba ni ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yalla na fi yag te wér na fi yag te ma sha allah fala laa bëggoon na ñu tëjee ko ba ki nga xamanteni moy mooy sëñ yalla tek ko fi muy wéyal li nga xamanteni moy mooy liggéey bi fi ci poroxaan yalla na fi yag lool te wér amiin lii lépp ci kanamam la woon éducateur ouais mu ànd ak mu ànd ak sëñ Bassirou diko liggéey ba ci ay loxam mu yok lepp fenn fu ne la fa sëñ Moustapha defoon mu bàyyi ko fa yokk gën koo taaral gën koo rafetal ba sëñ Tuubaa gàttandul ko bopp loolu mooy lan léegi mujj na jilifi murit bi nekk xalif général de murit mosu koo xaar déedéet mosu koo foog mosu koo nekk dëgg la mosu ta doon yitteem mhm. mosu koo soxla te mosu ko woon gis sax mu nekk au devant déedéet waaye gën soob na yàlla mhm. sëñ Tuubaa gërëmal ko boppam mhm. ba jël yan boobu yan ko fekk na bi mu ko daataan yanu nag muy ku ñu préparé ci anam yépp ci xam gi ci njub gi ci mbaax gi ci gëm yàlla gi ci bëgg sëñ Tuubaa gi moo tax bi mu dikkee mu yomb ci moom nan la yombe addina bépp a ko ko yéene lu mu wax ñu def bu xalaatee sax te waxagut li ñu jóg bëgg def. ma ngoog lii nag lañ leen indiloon andiloon ci waxtaanu màggalu poroxaan yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo lool kaddu yi nga xam te sëñ Abdoulahi jubee na ko muy kàddu yu am solo lool dañ koy daal di bàyyi mu tëj sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf waa Dakar ak

jaa ngeen jëf danta mooy doonay xayru xalqullahi billah loolu doy doy na moonu doy abadan te mooy doonay xayru xalqullahi